mooy euh, école bi nga xam ne mooy franco arabe la tey ñuy sargal li nga xam ne mooy xale yi ndax mun nañ xam solo ndaje bi ak ñaata euh, neexal lañ war a neexal xale yi. alhamdulilah rabil aalamiin euh, Momadou maa ngi lay nuyu di leen di nuyu mboolem journaliste yeeg caméraman yeeg ñi fi nekk ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla sàmmu leen te taxaw leen solos bés bi mooy ne Medina Baye lañ nekk. Medina Baye dëkki xam-xam la xam-xam moo ko sacc comme ni nga xamee ne nii diine lislaam ci boppam euh, li xam-xama ko sànc parce que jàngal iqra moo ci njëkk a wàcc bi loolu amee nag lii évétement la boo xam ne bay daf ko daan def ngir lan bokk na ci moyens yi nga xam ne ci la daan jaar pour encourager nit ñi ci xam-xam ak ndaw yi buggu xam-xam mu sosoon fi école boo xam ne dafa wax ne école bi baayam la ko tuddee waaye prolongement wu école u baayam la moom bàyyi ci boppam ci école boobu la jànge bu luy fin d'année amaan bàyyi ci boppam mooy jël xaalisam génne ay kadoom ñëw présider jotaay bi ñu jox euh, ndàmpaay ak neexal ñi nga xam ne ñoo at mi man am na benn benn professeur boo xam ne daf ne ma bi mu defee discours am ci kanam Baye Baye akolaat ko bi mu ñëwee papaam def na ko yow daal doom man bu ma bu démb doon wax ak tey ma dellu jàngi xam-xam parce que man nekk naa ci dëkk bi lu ëpp bala ngay juddu defal naa bàyyi lu nekk mais bàyyi musut ma musut ma akolaat kon loolu mooy wane ne xam-xam mooy tax bàyyi akolaat sëriñ Mahi ci boppam bi mu ñëwee moom tamit nekk directeur école bi daf ko daan def lu jiite loolu Cheikh euh, Nazir daf ko daan def jamono yii ci gannaaw nag ñaari at ñetti at ci gannaaw konorna bi arrêté ko ren nag bi école di ubbi sëriñ bi wax ma ne ma euh, dañoo war a yëngalaat euh, affaire culture ci dëkk bi te loolu école bi moo ko war a jiite. bokk na ci li ñu war a def kon pour yëngalaat culture mooy bu année bi jeexee ñu defaat cérémonie boobu nga xam ne moom lañ daan def waaye nag yàlla def nag beneen prétexte xaj xaj na yéene sëriñ bi ak xaatiram indi beneen prétexte boo xam ne moo gën a motiver affaire bi mooy ne ci bag yi bag yi nga xam ne état moo koy organiser dañ ci am résultat boo xam ne résultat bu kawe la. 63 virgule quinze pour cent am 29 euh, mentions ñu ne loolu nag comme ñu ngi doon xalaat ne dañoo war a récompenser xale yi far ñoom ñu indi résultat bo mel noonu kon raison de plus ñu oote ko nag ne ñëpp nañ ñëw fekkee ko euh, de passage ñu ngi gërëm teewaayu nit ñi parce que euh, am na ku xaal sax ne ma lii bañ joxee dalee joxe prix ci école bi ba fii ñuy wax ak yow. jotaay bu bëree nit nii macha allah mu nga jam nga am mu nga gëj am ci jamono Baye loolu dama koy wax pour sant yàlla te kilifaa ko wax mag la koo xam ne yàgg naa fekke fekkee na ay jotaayu Baye bi loolu amee nag ñu oote ko ne képp koo xam ne mën ngaa teew nga teew ku ñu mën a ñaanal nga ñaanal ñu waaye képp koo xam tamit am nga ndimbal boo xam ne mën nga ko cee dimbale pour ñu jox ko ñooñu ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo kii loolu tamit lancé nañ ko ci biir loolu ci lañ am nag yàlla def am nit ñoo xam ne dëgg dëgg ñëw nañ taxaw ci taxawaay boo xam ne taxawaay bu rëy rëy li ci jiitu mooy maire bi ci njiital Serigne Boub waaye euh, ministre euh, Serigne Mbaye Thiam ministre euh, Abdoulatif Coulibaly mu ngi ci yoon wi di ñëw nga xam ne ñëwam rek am na lu bëri lu muy représenté waaye tamit nag li ñuy wax nasibul asad ci arab mooy cëru gaynde ci taxawaay dëgg-dëgg Pape Demba bi tey moo ko def indi vingt neuf ordinateurs pour jox ko ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo gagné ñoo am mention waaw Serigne bay Thiam feelu ko moom tamit kenn ku nekk ci ñi nga xam ne am nga mention dana la jox cinquante mille waaye kenn koo xam ne tamit da am nga jël nga premier ci sa ci sa ci sa cycle dina la jox moom tamit même sombo ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne def nañ ko vraiment muy lu neex loo xam ne vraiment ñun ñoo ko oote mais dëgg-dëgg sagal nañ ñu te dimbali nañ. Euh, sëñ bi ñu ngi euh, ci li nga xam ne moom mooy édu wàllum éducation tey mën nañ éducation mooy yar ñi nga xam ne moom mooy xale yi euh, ba ñu njëriñ li nga xam ne mooy réew mi tey ñu ngi war a tabax teg li nga xam ne mooy quatorzième législature assemblée nationale te état bi tamit donte sax mi ngi góorgóorlu ci li nga xam ne mooy éducation bi ci wàllu franco arabe. lan ngay yóbbante député yi nga xam ne ñoom ñoo fas yéene dugg assemblée nationale pour li nga xam ne moom mooy njàngum arab beeg yu demee noonu gën a jëm kaw. waaw xam nga li ñuy li li li xew rek mooy ne euh, jàngam arab moom ak jàngam alquran jàng alquran xam ko jàng diine xam nañ li muy def parce que man damay faral di wax ne réew yu bëri ci Afrique yoo xam ne tas na xeex am na fa rayante am na fa diggante ay famille ak ay mbokk. boo ko xoolee rek lislaam taxawu fa amu fa doole euh, réew yi nga xam ne fan lislaam am doole mu mel ni Sénégal fi la ñàkk gi gën a méttee fa problème yi gën a bëree mais fi la rayante bi gën a moyen fréquent yi loolu li ko waral mooy diine li ci jiitu mooy muñ diine li ci jiitu mooy fonk doomi aadama respecté ko euh, bëgg ko bëgg koo teral waaye doo ko doo ko gaañ kon li ma bëgg a wax daal mooy te euh, Sénégal am nañ tradition yu baax yoo xam ne teraanga ak nangam waaye nag dañoo adopté lislaam lu jiitu ñuy adopté njàngam tubaab bi te biñ ñëwee ci réew mi jamono colonialiste si ba léegi école français yi mu ngi fi génnee na ay kàngam yu bëree bëree bëree bëri yoo xam def nañ jaloore yu bëree bëree bëri ci àddina bi fu nekk waaye nag école alxuraan bi lim génnee wax dëgg yàlla école français bi génnee ko parce que école français bi moo génnee école euh, alxuraan bi moo génnee Cheikh Ahmad Bamba moo génnee Cheikh Cheikh El Hadj moo génnee Cheikh Ibrahima moo génnee El Hadj moo génnee ñeneen ak ñeneen ak ñeneen te ñooñu tey fu turu Sénégal àgg ak respect bu ñu àgg Sénégal ñooñu la kon loolu wane na ne euh, école bi génnee façon nit ñu mel noonu école boobu tamit jar naa jàppale jar naa taxaw xaj na ñi dugal seen loxo tey ci bés bi loolu lañ xam moo tax ñu jàpp ci bés. lan ngay wax euh, député yi nga xam ne ñoo fas yéene dem assemblée nationale par rapport ak ñàngum mi nga xam ne mu ngi duppee ñàngum franco arabe yow lan nga lan mooy sa jàpp par rapport ak mission ban mooy li ma la wax rek gën cee gën koo gën koo taxawu parce que njàngam euh, leneen man jàng bi ma xam mooy jàngam arabo islamique mais arabo islamique ñun bi ñu demee ci daara ji lu ñuy njëkk a jàngal mooy jàng d'abord du wut pour am métier du wut pour mën a liggéey du wut pour xereñ d'abord waaye d'abord mooy jàng pour nite da ngay jàng pour doon nit yow sa bopp nga xam yow yaay kan nga xam nit ki nga jàkkaarloo mooy kan ba muus sax doo ko toroxal parce que jàng nañ ci xadis ñu ne am na jigéen joo xam ne njaalookat la woon bu ñëpp xam ñëpp foog ne kii moom safara rek la war a dem waaye benn muus moo xam ne dafa mar mu dimbale ko mu naan ci lañ xamale yonent bi ne ko kii aljanna la jëm kuy respecté muus di ko yërëm kon doo lor doomi aadama donc jàng moomu importance am mooy loolu mooy éducation lay jox nit mooy nite lay jox nit mooy fonk nit njàng mu mel noonu nag dañ koo war a respecté dañ ko war a dooleel dañ koo war a ñoŋal càkkuteef lan la la laajoon lan ngay man li ma wax fi li ma waxoon keroog président bi ma dajeek moom laa wax ba mu dajeeg moom ñu boole ma ak moom mu ne ma yow luy sa soxla ma ne ko man dama soxla suma soxla mooy soxla askan bi mooy soxla njàngam arab mii ñu am ñu dimbali ñu ci ba mu gën a taxaw ba mu gën a àgg foo xam ne parce que yi tamit baax na di jàng diine pour pour pour mën a jaamu yàlla. waaye bu fekkee ne jaamu jël euh, jàng ko pour jaamu yàlla rek la mais mënu la indi loo dundee loolu tamit dafay poser problème kon maa ngi leen di encourager ci ne euh, jàngale métier mii ñuy def ñoom euh, lycée technique ñu ngi signé ñoom ay accords yoo xam ne pour dimbalee xale yi jàng ci école arabe yi ak même ci daara yi buñ buñ demee ba xaw a nekk mag ñu mën leen a jàngal ay métiers yoo xam ne à côté dañuy mën a am seeni métier nañ dimbale ñi xam ne ñooy jàng alquran dimbali ñi nga xam ne ñooy jàng arab parce que ñooñu ñooy jàngale jikko yi mais xiif mën naa yàq jikko xiif mën naa yàq euh, leneen bu ko defee buñ leen bàyyi ñu xiif buñ leen bàyyi ñu sonn nañ leen jàppale taxaw leen pour ñoom ñu mën a ëmb li nga xam ne moom mooy éducation réew alhamdulillah alhamdulilah. abonné leen ci seen chaîne malben bu leen fàtte bës cloche bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi.